tournage di la ñaawal ci sa bët yooyu ak ci sa handicap yal nañu ko yàlla wan dafa am loolu musul am yow yaa daan ñëw ni man de sama bët yi jaaxal na ma Baye Fall sax nga benn bis dafa dawal mu doom jël autoroute contresens hmm. ndax jaawale mu ñu koy nettali di lee buñ nee naan alaaj seexu anam fu ngeen féete waaye di def nii entre artiste quoi mais hmm. kon tey bu mu dem micro yi tiim la ay nit jege la xaw ma noo ko gisee nga daal di culpabiliser wu sosal tey nit rafetul bàyyi séq nañu lu ëpp loolu ci àddina bàyyi ñaata nit ñoo la teral ci àddina ndax soleil la moom ñaata nit ñoo la solal yi rek dàll ndax suñu jëmm yi xamoon nañ la mais dooni bàyyi faal vulgarisateur doonu bàyyi faal jaaykatu pëna da nga naan bàyyi faal bu wiiri wiiri soleil la vent nga étiqueté sa bopp malgré bokkoof mm-hmm. ku la teral à 97 pour cent ci suñu jëmm yi la la teral bàyyi fàttalikuñ ñu sax bu dee benn fan boobu fàttalikuñ sax bu dee ñeenti at sëq naa ko ak yow soleil levant di la fay salaire même bu dee salaire bi nga ni ñaari fan nga ci daan dund waaye def nga lu ñaaw puut mu salte ci biir néeg ci biir néeg lañu koy ci sa responsabilité la nga ñaan ku nekk yow la engagé yaa xam ni ngay defalee sa vie yal la yàlla wéral yal la yàlla suturaal yal la yàlla delloo la nga yoroon ci say bët bu fekkee am na ku nekk soleil levant yéene la li nga nekk yàlla nañ la ci jiitu en l'occurrence man mii wax ak yow Cheikh Ndiaye dafa naan ma allo Ndiol ma ne ko koy booy bonus pied la ñuy woowee bonus pied ma ne woy bonus pied mu ne ma mais booy foo nee ma ne wër rek man ma wóor ma yaa ngi ci ci yitte jàmbur yi di dox rek booy noppalikul mënoo def lépp sama aawa danaa ma Cheikh Gueye mënoo def lépp mënoo satisfaire ñëpp te doo ci am lu la neex ma ne ko ma am ci yàlla ma am ci yàlla te fifi yéen ñëpp ak ñi fi teew ak Sénégal bu fekkee yëgoon nañ ni Baye Fall bëtam yi àgg na foofu nu ñu sóoboo te yàlla nu mu àgg